mbokki jullit yi gannaaw bu nu sante subhanahu wa taala suñu boroom di julli ci yonentam ba seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp di balu xaq ñépp di ñaan yàlla mu boole nu jéggal suñu digg ak moom te dox ci suñu diggante ak suñuy moroomi jaam tomb bi ñuy fàttalante tey mooy nit ki jaam bi ne ca lam war a ne al amalu saalix dafa am lu tax suñu boroom andi nu fi tontu woon na laaj bi bu yàgg ndax xam na li ci kanam te ak seegut te la ca gannaaw du ca fàtte dara moo waxoon ci alquranul karim ne li tax mu binduñu bañ fi ñëwagul sax du lenn du yaar du yat lenn la muy ñu jaamu si ko rek ñu nangu ko jaamu ñu jaamu ko waaye am na ñu ñu lànk ñi am tawfiq nag ba bokk ci ñi ko nangoo jaamu lu ëpp ci buy wax ñoom lay waxal yaa ulil albaab yaa ulil nuha inna fi dalika la ayatin li ulil nuha fattaqu llaha yaa ulil albaab laallakum taaqiluun laallakum tatafakkaruun laallakum tadakkaruun loolu doy naa sant yàlla sëkk bokk ci ñim bind ci coobareem ba noppi boole ñu ci ñi muy limaale ci ay jaamam yi ko nangul yàlla na nu yàlla dollee dimbali ba seytaane bañ a am ci ñun aw yoon ba dañu xalaat loo leneen ne ci liñ fi war a nekk nag mooy ñaareel bi bi mu nu sàkkee ba noppi dafa am fu mu nu war a yóbbu wutal koy sabab yoo xam ne lu gudd la waaye daal bi mu ñu fi indee dafa diggewaat ne ku jaar fii jaar fii jaar fii man ngaa delluwaat fu gën fa ngeen nekkoon bi ngeen di laata ñëw fii ndax bu ñu demee ci alquran danañ ci fekk mu ne fenn wala laaxiratu xayrun laka min al ula ak wala axiratu xayrun min al ula fii ngeen nekk li muy metti metti fa ngeen doon jóge fa ngeen jóge la muy lam doon bakkane bakkane ndax raxat moo fa nekk kula minha ragadan xaytu chituma waaye su ngeen jaaree ci lii may santaane bañ caa tegg seen tànk bañ caa tegg seeni gët bu ngeen fay delluwaat da ngeen weesu fa ngeen nekkoon cib noflaay ak cib yaatuwaay yàlla noonu yàlla boole sa ñooña soññ ñu ci alquranul karim ci ay warab yu wuute ci ne ci li nga war a nekk am na foofu daa joxe ndigal ci ñu ne ci li mu war a nag tudd naa ko léegi i'malu ne leen ci li ngeen war a nekk su ngeen ci nekkee ak su ngeen ci nekkut rawatina su ngeen ci nekkee nag yàlla mi ngi ne jàkk di leen xool rawatina su ngeen ko jaaree ci njàngaleem rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla xam yonent bi xam ñi ngeen koy siqal seen moroomi jaamet xam foofa dafa joxe ndigal diggaat ni nañu su ngeen ko defee su ngeen ko defut yëpp dañ leen yóbbu da ngeen delluwaat foo xam ne fii da ngeen xam ne ki leen waroon a sant te sañ leen a sant moo leen santoon. am na fu mu digle it fu mu fu mu waxee ci alxuraan it ne ne ci li nga war a nekk li muy jural nit ki fii ci kaw suuf ak ëllëg. am na fu mu ko niroo leel ak bor leble lebale mu ne tee ngeen a sax ci yii may bëgg a wax fu ñu ne jaamu yàlla jot na bàyyi leen la ngeen doon def te dem ca te fret seeni bagaas fret ñuy tukki xam nañ ko ku mësi tukki it mën naa xam ay tool wala mu nekk benn dëkk te di def lu mu am yóbban yónnee ko seen dëkk loolu moo tudd fret léeg-léeg nit fret ci ay bagage loo xam ne bi mu agsee gis ko mën naa jaaxle sax ci lii nu mu def ba ba am ko ndax bari nga xam ne moo ko moom waaye bu ñu ko ko yanoon du mën a dem loolu moo tudd fret munoo ànd ak moom di dem nga yebal ko mu jiitu la mooy lebal leen yàlla ndax ku lebal yàlla bay boo nga faye bor ne yàlla dana ma fay ma fay la te it li ngeen fii li ngeen di jël di ko yóbbaale di ko def sac à main amulu leen njariñ waaye la ngeen fret moo leen amaan njariñ ndax day dolli ko foofa loolu yomb naa xam fii ci xaalis bi ñu bari xam boo demee ci maqaamaatil xariiri am na maqaama bu ñuy wax ad dinaariya kooka dafa wax ne xaalis du dara waaye nag dara du xaalis itam nag xaalis du dara waaye dara du xaalis lim mën a def ci lu baax dara mënu ko caa wuutu waaye lim mën a yàq kenn mënu ko caa wuutu xaalis moomu nag ku ko xam neex naa neex naa waxal ci jamono ku ne xam na ne xaalis bii nga xam ne moo ne ci réew mi ñun ñëpp ñu bari di kër kër di ko wut te koo ko jox mu jël am na réew yoo xam ne soo ko fa yóbbu amu fa benn njariñ ñi gën a naan dañ naan la baaxut rek ñi ci des boo leen ko joxoñee lu këyit wu mag mag këyit wi ñu ci gën a mag le mënoo fee naan kafe kon yóbbaale ko fa amul njariñ waaye am na réew yooyu xaalis ba fa nekk fii sax la ëpp njariñ ci réew moom dëkk ñi tukki xam nañ ko dala yónnee këyit wu ndaw ñu bind ci cinquante ne la xeeb naa ko lool de te cinquante doon juróom benn junni ak genn wàllub junni waaye foofu mën naa am tekkiwu fa dara da koy xeeb lool ruus sax ci yónnee gi nga koy yónnee te fekk yow bu ñëwee fii da nga naan ko siiw kon ku jàppe foofa àdduna jàppe fii àllaaxira dana ko neex a waxal xam ne la muy yónnee foofu muy ñëw fii donc la jógee foofu ñëw fii rek moo fi am njariñ kon ku jóge foofu ñibbisi bu do bu tojee aw kayit mu ne gaañ ni la muy rëcc mooy lu teewoon mu indi ci conteneur ba mu fees waaye su dem mënatut am nag mooy ku dugg ku génn àdduna ba daan walbati ko wax di fàggu si mënatut a am yàlla na yeex te bu ñuy rëcc yàlla na doon rëcc rëcc gu yam rek am na fu mu wax ci alxuraan naan ne ne leen ci li ngeen war a nekk ndax su ëllëgee kenn ku nekk loolee ca lañ koy àtte ba xam ma nga ca woon wala nekku ca woon ca lañ koy fayee am fu mu mel lu ab laaj boo xam ne moo gën a xam ñi mu koy laaj ndax kenn ku nekk ci yéen bu weer dee dana yaakaarook pay fenn fudur fa mu doon liggéeyee ñu ne déedéet mu ne kon boog nekk leen ci li ngeen war a nekk. am na fu ñu wax ci alxuraan nag ne ku ne ci li mu war a nekk ku ca nekkul lépp maa ngi ko tiim di ko xool bu dee tiim sax day mel daa nekk fi barab ci kaw. waaye fu mu mën a nekk moom waa ji bu nekkee ci li mu war a nekk ak bu ca wët bu ca nekkul yëpp yàlla nee na mi ngi ne xojj di ko xool am na fu mu ñuy waxee ni su fekkee daa daa dañoo sori moom ba ñàkk giñ ko ñàkk di tëg bët mu mel ni ay caaxaan la nee na am na ñoom ñu booleel ñoo xam ne duñ tàggoog ñun mukk li feeg ñu ngi dem ak dox ak wax xanaa nelaw ndax rufi'al rufi'al qalamu an salaas su boobaa moom dutuñ bind waaye li feeg ñi ngi dox ko wax luñ bind ak wax danañ ko bind yàlla na doon lu baax tam doon fekk ñu ne ca lañ war a nekk loolu ñuy liggéey ci yenn liggéeyukaay yu mag yi mën nañ cee xam dara am na liggéeyukaay yoo xam ne dañ lay jox as carte as kayit su ndaw soo xam ne sooy dugg da nga koy dugal ci as mbuwaat as ngaal génnewaat ko sooy génn defaat ko dem lañ ci jublu mooy ñëw naa waxtu sàngam ak dem naa waxtu sàngam duñ la ko laaj yow mu mbuwaat soosee lañ koy laaj moom la ñuy xool rek mu ne bis sàngam waxtu sàngam la agsi bis sàngam waxtu sàngam la fa jóg te it waxtu yooyu nga liggéey dugg ko fa liggéey ko ca lañ lay fay loolu neex naa xam kon bu ne boole nañoo ak ñoo xam lu ñu def ñu bind ko mënoo ko gëmal machine soosu wala mbuwaat soosu di ko weddil suñu borom subhanahu wa taala inna aleykum la xaafidina kiraaman kaatibina yaalamuuna ma tafaaluun ak nit du génne ci làmmiñam benn genn kàddu lum néew néew lu dul am na ku ñuy wax raqiib ak atiid ñoom ñaar seen ñoom ñaar ngi seen tur yooyu daa am lu muy tekk ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kon ñu bàyyi xel ne subhanahu wa taala am na ñu ñu booleel ñoo xam ne ñi ngi ñuy noté ba xam ñi ngi ci lañ war a nekk wala nekkuñu ci am na fu mu waxee ci alquran it ne bu ëllëgee ñi gëm ne ëllëg mi ngi ñëw te loolu ñi ko gëmut bariwuñ ñi gëmut yàlla sax gëm nañ ne ëllëg day am ëllëg moo tax ñuy cotiser retraite di cotiser assurance di cotiser santé accès gut waaye ña ngi koy dawalal loo xam ne saa bu accès ñu mën leen caa taxaw loolu moom ñi gëmut yàlla yi gëm nañ ko di ko doxe waaye ñun ñi gëm yàlla nag ñun war nañoo xam ne ñi waajal dunduk àdduna ba ba nose ko noonu ba nga xam ne kuy liggéey ku nekk ma ngay jël ci yow loo xam ne bu wéradee boo wéradee ñu faj la ca kii liggéey nangu lool ëllëg si boo demee ba liggéeyatoo te ñu la ko jox ndànk-ndànk nga di ko dundee it ñi gëm loolu moom ñun jullit yi ñoo ci war a raw xam ne li yàlla ne da ngeen mas a teew fi sama kanam bés du ma leen laaj ngeen di wax waaye téere boobee raqi bagaat yi doon bind guddeeg bëccëg li feeg yéen a ngi dox ak a wax moom la ñuy taqaat ci jox leen ngeen jàng ko joxiin wa kayit wa nag dana amuk wute am na ñu koy mën a jàng am ñu ko dut mën a jàng moom lay wax ci alxuraan ne kuñ tàllalaw kayitam ne la saw kayite ngi nii am jàngal nga nangoo sa ndeyjoor sam xel mën naa dal ndax danga gis mbind mi te danga ko mën a jàng su ko defee muy wax ca kaw mbiram jag am na ñoo xam ne bu ñu leen koy jox nangoo ko ndeyjoor du leen jekku du leen jubu am na ñoo xam ne seen ndeyjoor mënuñ ci dara sànni sax mënuñ ko ci càmmooy lañ koy def su ko defee càmmooy la ñuy tàllal ci gannaawam ki leen ki leen am këyit yi moom toujours dañuy saa su ne dañuy jàpp ne ci gannaaw la nekk wa amma man uuti kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man uutiya kitaabahu waraa dahrihi fa sawfa yadcu thuburan wa yusalla saira yàlla na ci yàlla musal mi ngi ci kanam nag soreetul kon foofu lay waxee ne bu ëllëgee kenn ku nekk dañ koy joxu këyitam muy jàng maa defoon nangam maa waxoon nangam su fekkee maa waxoon nangam maa jëfoon nangam lépp lam fi waroon a nekk la fi nekk mu siggi ay soppeem yépp siggi ay noonam sëgg safaan ba mooy safaan ba yàlla ñu jàll mosal te bokk yi su boobaa foofu muy gën a kawe fii ma taxaw foofu muy gën a xumb li may wax am na ñu koy dégg am na ñu ko du dégg am na ñoo xam ne maa ngi koy wax am na ñoo xam ne xamuñu ne maa ngi koy wax waaye foofa mel ni penc la ñëpp fay dajandoo benn yoon ñu jëkk ña ngi mujj yi ñëpp am na fu muy wax ne nekke fi li nga fi war a nekke su ëllëgee day doon looy war fu la neex dem deme ca wala mu doon lu la war doon sa bagage boo xam ne fa mu jëm yaa ko fa jëme lahu aw alay yàlla noonu yàlla musal ci doon bagage boo xam ne fu ñu jëm ñoo ko fay jëme kon boo waxi suñu boroom lim waxagun ku gudd fan teg nga ci sa bët te la ca kanam àgguñ ca mooy raw foofu liñ gisagun bind lee doon ci liñ gisagun moo tax nañ góorgóorlu bu baax farlu ci li nekk ci liñ fi war a nekk ndax xamuñu fu ñuy faatu di fekk ya ma wax yépp ginnaaw faatu la xamuñu fu mu ñuy fekk xamuñu nu mu ñuy fekk waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla déglu ay waxam nee na kenn ku nekk buy faatu nam faatoo ak la ko faatu fekk mu di ko def ca la ko yàlla tàmbalee àtte di xóotal dossier yi yàlla nañu fekk ci lu baax te mooy lañu war a nekk lii xamal nag nit nit nag ne ko yaa ngi ci li nga war a nekk mooy bis bu set mu gën a sawar ci jaamu yàlla loolu comme dal mën naa rafet njort ci ne moom mi ngi ci li li ko fi yàlla indi woon bis bu set mu gën a sawar ci jaamu yàlla ñi ngi waxtaane ay kilifa yoo xam ne dañ ne am na si kook wala ñooñ bu wax lu waxtaan yu xumb xumb ak lu mu neex neex ci bokk ak lu baax buñ tàmbalee nodd moom gaawal daaneel ndax li ngay wax duutu ko dégg waajtaayu nodd gi daanu ba mu ne ñokket dem julli ci dong lay wa lay xalaat ak yoon wu muy jar ba dem ñooñu nag ay royukaay lañ lañ doon bàyyi xel mooy aayaat yooyu ma jàng yépp hal tujzawna illa bi ma kuntum taksibuun hal tujzawna illa ma kuntum taamaluun te bokk yi foo xam ne fii yàlla du déglu waa ji muy wax da koy jox këyit yi muy jàng su ferut ijji wala ay gëtam neexut loolu du màndarga yu baax su boobaa du am ku ko abal ay weer du am kum naan tee ngaa ñëw xoolal ma lii ba xam luñ ci wax ku nekk nafsi nafsi lay wax waaye yàlla nee na su boobaa su waa ji mënta wax wala muy tàmbalee logg-loggal cër yi doon jëf laay laaj muy wax yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu wa qaalu lima shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shayin wa huwa xalaqakum awala maratin wa ilayhi turjaun wa ma kuntum tastatirun an yashhada alaykum samcukum wala absaarukum wala juluudukum walakin zanantum an allaha la yaclamu kathira mima tacmaluun wa dalikum zannukum ba aaya ba ak yàlla noonu yàlla musal bañ bañ bañ a bokk ci fa asbaxtum min alxaasirin kon ñu xam ne dafa am lu ñu fi indi woon te moo ñu fi bàyyi muy nekk fi liñ fi war a nekk ndax kat ku am téeméeri at ak ñaar fukk dañ naan ak gudd fan nga dégg ki koy tàgg ki koy tàgg naan yàlla nu yàlla tas ci barkeem lu nut ci fanam yooyu dara yàllaa ko ko may waaye li ma ta laaj mooy lu mu fi nekke woon moom téeméeri at ak ñaar fukk wala boog téeméeri at gannaaw bu mu xàmmee ci ñaar fukki at yi nga xam ne yu yées tuuti la la nit di tàmbali yàlla di ko wàññeel ak di ko booleeg ñi koy bindal bu amee téeméeri at ak ñaar fukk nañ xool téeméeri at yi lu mu fi nekke woon su fekkee la mu fi waroon a nekke la kooku mat naa ñaan yàlla mu may la lam ko may te góorgóorlu nag ndax li tax góorgóorlu gi jar ko mooy yàllaay maye aw fan nit itam koo gis nit a ko jur jur gi ko diw jur doonu ci dara da ko fee fekk rek benn mu ne alhamdulilah wala mu ne alhamdulilaay ñu wolof di doyee dale lu mu fonkut loo léegi nag mu des ak góorgóorloom akuk farloom ndax dana toll foofu mook baayam ak ndeyam la yàlla bokk di bi di bindal lee ñuy def ñu am képp di leen fay ak di leen teg ay nattu yàlla yàlla musal ci ay nattu bu faw kon téeméeri at ak ñaar fukk dañ koy yéem te lu gàtt la ci li fi àdduna amagun balaa waa ji ñëwagut luy gàtt la it ci li fi àdduna nar a nekkaat kon yàgg ci kaw suuf du ay at waaye ay jëf la yàgg fi daanaka boo ko desee amul njariñ waaye jëf fi li li taxul ñu indi fi dong moo fi am njariñ gannaaw nag dund gi lu gàtt la te dee day bette lu lu nit bëggu dee fet fekk ko ci bu mu ci nekk mën na ñëw waxtu wu nekk mën na ñëw bis bu nekk mën na ñëw wax saa su nekk ak dëkk bu ne ak suuf su nekk yàlla nee na woon ci alxuraan nit xamut bu ëllëgee suba lu muy am ci commerce bi muy def wala business bi muy def nag ni mu ko umpalee noonu la umpalee fu muy faatoo bu ëllëgee xamut ayu ard la yàlla wax bu ku faatoo ci géej bu mu tekki ne ayu ard dafa dàqu waaye suuf ci kaw géej la taxaw loo séen ci kaw suuf rek loo séen rek yow ci sa ci say gët bu dul asamaan si loo seen rek boo teenut ci kaw suuf si la taxaw ginnaaw kenn xamul suuf su muy faatoo waxuma laa nu muy faatoo te kenn ku nekk digg bi mu fi am yàlla lim na ko ba teg mi ngi mel ne montre boo réglé juróomi waxtu ci suba rek nelaw du ko tee sone bu àgg ca waxtu wa noonu la dundu nit mel akub akub faatoom di nelaw ne xam yeex a nelaw ba nelaw yi xóot ba xa- déggoo montre bi du tee montre bi sone moom noonu la ko yàlla réglé ci ni ko nit mën a dégg noonu mu réglé ne bis sangam lay doon ci weer sangam ci at sangam it noonu la wàññee nooy ba nga xam ne kenn ku nekk ak lañ fi war a nooy am na ñoo xam ne lu tolloog ab bis la ñuy nooy mooy ñuy judd daal di faatu fasaasu am ñoo xam ne bu ñu tàmbalee nooy yi bay tàmbalee yëg ak yëg bànneex ak naqar ci seen biirum lay ca la ñuy faatoo benn ñu faatu ñoom kepp xarala gu yàlla yenki war nit génn leen yaay ja dund wala yaay ja faatu ànd ak moom yàlla ñu ci yàlla musal gannaaw nag lu ci nekk yàlla daf koo takk te dara du ko raw laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsaaha ni ñu fiy nekke suñu diggante ak suñu boroom ak suñu diggante ak suñuy moroomi jaam lu mat a wàññi la calculer ko ku ci ne daa amub dig mooy li kulli ummatin ajal ida jaa ajaluhum laa yastaaxiruuna saa mooy war si biir ida jaa ajaluhum laa yastaaxiruuna saatan wala yastaqdimuun lan yuaxira allahu nafsan ida jaa ajaluha ma dem fi te dikk ak ma àggaleeg ma wax sama soxla jeex na foofu lay yem ñu ngi mel ne raakool buy xelle ba yàgg rek robinet bi tëj dana këttit yam fa loolu nit di des di xur-xuri xur li bëri ñu naan mënta nekk mënta nekk mooy li ngay xelle ci raakool bi muy xelle nga defee ndox nga jëme tey ndox ka ko doon xellee dagg na kon inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum koo ne lu ku def lii mucc ci dee wala gudd fan yàgg fi loola lu mu laaj kooka dana ko jàll waaye nee na fi nit ki jóge di ko daw defee ne su defee nii mucc ci dee moom ma nga jóge ca kanamam fa mu waaj a jëm fa la fa la dee doge di ñëw faaw ñu tase yàlla na nu yàlla dimbale ba ñu sax ci liñ fi war a nekk dana ci dimbale nit lool nag bu dee di agsi du ko bett mooy dëkke tuub lim xam ak lim xamut bu mu nekk ci yeneen ba yaakaar ne yàlla mënu koo jéggal inni la gafaarun liman taaba wa amana wa amila saalihan summa htada yal na nu yàlla dafa dégg ak topp te boole ñu ci ñi fiy nekk ci liñ fi war a nekk yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin
TQG Touba Quincaillerie Générale lëkkaloo ak Colorado bi njëkk ci wàllu peinture ca Maroc te gën a njàqare ci réew mi lépp luy taaral seen dëkkuwaay ci biir ak ci biti TQG andil na leen la ci gën di Colorado amiral seen peinture à eau biir ak biti weex tal li ca dàq nag mooy mën ngeen ko raxas yow mii nag bëgg am salon bu yànj te taaru lool kaay ma jox la secret bi jaratul wala yaan fenn TQG andil na leen ay gamme